salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi fii ci quartier général bu Touba ca kanam Nourou Darayni e, war fi ànd nag ak sunu mbokk yi nga xam ne dañu bokk na ci diaspora bi ñu dem ci juróom benn fukki réew ak benn waaye lenn ci ay coordonnateur nag teew fii ñu war a ànd ak ñoom bokk na ci ñi fi teewoon ku mel ni Baye Serigne Gueye gite sous commission bu Europe Serigne Khadim Thian jiite sous commission bu Afrique waaye moo Mourata sekk moom tamit yore lii di suivi ak évaluation ñu nekk ak Serigne Ibrahima Sarr di coordonnateur général bu Mauritanie mais di euh, première euh, vice président sous commission bu Afrique sëñ Ibrahima Sarr ginnaaw bu ñu la dalalee fii ci quartier général bu Touba ca kanam nooru daale ni nga bàyyi ko Mauritanie ngeen jiite Afrique euh, ban jàngat nga am ci. sous commission bu Afrique taxawaay bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy am ci diwaanu diaspora bi rawatina nag ci liggéey bu am solo bi ñu dëgmal muy waajal màggal bi nga xam ne ci la ñuy amal sunu assemblée générale sëñ Ibrahima. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki Touba yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñ kilifa gi sëriñ euh, Habib Mbacké ak Cheikh Abdoulaat ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi di jiital ci jasporaa bi suñu kilifa sëriñ Abou so Euh, di nuyu ki nga xam ne moo jiite suñu sous commission Afrique di sëñ Xaadim Thian ak Baye Serigne Gueye mi jiite Europe euh, xanaa di bëgg rek sëñ Baye Pen euh, bu Gàmbi comme laaj bi nga laaj di nuyu sëñ Aliou Waaj mi nga xam ne moom laa dendal di suñu roy waay xam ne ca Mali la nekk daanaka ñëpp xam nañ ko comme ni nga ko waxee rek mbégteem Touba ci kanam moom rawatina diaspora bi Euh, jort naa ne yokkute gi rek ci ngay ci ngay amee ci ngay amee euh, yëg-yëg bi ngay yëg. Hmm. ndax yokkute gi mooy gis nañ ne réew yi nga xam ne dolliku na ci Afrique bëri na lool te nañ ne versement yi mu ngi yokk loolu ci ngay amee fierté boo nekkee ci Afrique ndax bu ñu nekkoon ci Afrique ba pare yëg ne versement yi mu ngi gën a wàññeeku waaye suñu liggéey te mu ngi gën a dellu ginnaaw loolu doo ci bég waaye nag loolu doo ko teg fen fu paase liggéey bi sëñ Touba sëñ Touba ay mbiram. lu mu nangu damay dégg sëñ Basiru Abdou Khadir di wax ne sëñ Saliou moo waxoon ne eh, ma jàngale sëñ Touba mu ne ko waaw mu ne ko liggéey bi sëñ Touba boo yëkkati nga gis taalibe ànd ci waatal na sëñ ngi foofu donc loolu doy na sëkk ci tegtal te Touba ci kanam moom doy na tegtal ci ñëpp ndax ku gis ni ko taalibe yi dëggale ni ñu ko wóorale ni ñu ko yaakaare ak yaakaar ji nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom laa war na jëkk eh, ñaanal yàlla na ak loolu te wér ku gis yaakaar ji nga xam ne am na ko ci kon war nañ xam ne Touba ci kanam nii rek la war te gis naa ne man yaakaar naa ne gisaguñ dara hmm. euh, moo tax may wax diaspora bi rawatina ñi nekk fépp ci àdduna bi nañ gën a góorgóorlu ndax euh, nekk ci loo xam ne da nga koo commencé dem ba yàgg ñeneen nekk ci neen loxo ngay wax ne pourtant man maa nekkoon maa nekk sëñ Mbaye Pène wala sëñ Aliou Waaj wala sëñ Nangam loolu amul solo euh, te gis naa ne Touba ci kanam nit ñi jox nañ ko yaakaar joo xam ne sëñ Touba jox na ko yaakaar joo xam ne hmm. li mu bëgg dëkkam li si mun taxa wax doy na loolu yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko euh, waxam ju rëy yooyu nga xam ne wax na ko ci yàlla buñ tas yaakaaru Cheikh Mamadou Mountakha kon daal ñu koy jaajëfal di euh, jokko ak kii di Serigne Alioune di koordinateur général bu Mali mais doon koo xam ne tam gis nañu ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a organiser journée Touba ca kanam ci Afrique euh, mu mel ni bi mu amee gis nañu yokkute bu baax a baax a baax ci fànn googu ci seen i versement euh, ban stratégie ngeen def sëñ Alioune Wathie ba tax yéen seen bis bi bi mu jàllee non seulement ngeen ko jaayante mais après ngeen di am ay vraiment versement yu am solo yoo xam ne saa su mu ngi doole ko lan moo waral loolu sëñ Alioune Wathie ñu ngi lay nuyu bu baax di rafet lu liggéey bi nga xam ne ni yéen a ngi koy def fii di nuyu sëñ Ibrahima Sarr mi di ko xamal ne ko nag cere moom xam naa ne bari na fi waaw ndax euh, saare ni moom euh, xam ngeen rek ni mel ci cere euh, ginnaaw loolu ñu ngi nuyu sëñ jël nuyoo bi di ko jox sëñ Abo Bousso mu tegal ñu ko ci diaspora bi yëpp di nuyu bépp coordinateur général bu nekk ci àdduna bi sëñ Mbaye balaa nga baal ma rek balaa may dugg ci foofu tuuti rek Touba ca kanam famille la te ay mbir a ngi ci biir yoo xam ne nii nañ ko gëstuwaat bu baax nañu gën a bëggante nañu gën a jàppante te xam ne Serigne Touba daf ñu boole ngir loolu gis nga Touba gii buñ ko liggéeyul jinne yee koy liggéey lu leer laa lay wax li ma li li liy fournir yi mooy dana tuubaa dana defaru defar ndakaaru Touba day defaru defar ndakaaru ginnaaw loolu nag maa ngi sant waa Mali bu baax di leen gërëm di leen nuyu bu baax ci jiitalu président daayira ba muy sëñ Matar Faye buñ ko jëlee yónnee eh, nuyoo bi teg ko ci loxoom rek danañu ko jottalil mbooleem taalibe bu nekk ci ci Mali moo xam tijaan la parce que foofu dañoo booloo lépp lu ñuy def fédération Tijaaniya Mouride ñëpp a koy ànd defandoo kon bu ñuy wax dañuñ leen di boole ñoom ñëpp benn nuyo di leen sant bu baax Mali dañ Mali taalibe Serigne Touba dañoo dañoo nangu dañoo nangul liggéeyal Serigne Touba foofu ci Mali loolu nag mag ña fa jiitu la ñu koy sante Baye eh, rahmatulah yi Baye Baye Ibrahima Gueye eh, Baye ma Bey ak Baye Ibrahima Gueye mi nga xam ne ni moom it ma nga fa ba tey waaye dafa féetewoo Sénégal ak Serigne Mbacke Seye mi nga xam moo nekkoon président daayira bi ñoo ñu tàggat yar ñu ci loolu ba lépp loo xam ne liggéeyub Serigne Touba la daf ñuy jaral lu ne daf ñuy jaral lu ne bàyyi suñu liggéey yitte bàyyi suñu liggéey yëpp eh, li tax organisation Touba ci kanam Mali bi réussir loolu lépp mbir suñu borom la xam ne lenn ni tappale amu ci xam ne lenn loo xam ne ni lu ñu jiixi jaaxe amu ci looloo tax Serigne Touba nangul ñu ba liggéey ba toll fii mu toll nii. Euh, ba tax na fii ñuy wax nii Mali euh, ñu gën a ñu gën a ñaaxaat leen rek ndax fii ma toll nii seen versement ñëw na mais joxaguma ko sëñ Moustapha Dieng bàyyi fa ay ndaw yoo xam ne nii ndaw yu nangul Serigne Touba lañ. fii may wax ak yow nii eh, daayira Mali bi indi nañ fukki giléem ak ñaar jébbal ko sëriñ Mbàkke yu fay fii may wax ak yow nii ñu ngi fii donc loolu euh, ñu gën a sàkkuwaat ñaan daal ñu ñaanal waa Mali suñu borom defal leen wér may leen ay xéewal ba ñu mën a liggéeyal sëriñ tubaa sëñ Baye foofu nag lañ koy gàttale wax la ne la daal Touba ci kanam famille la